mardi 6 avril 2021 euh, bonsoir à tout et à tous daleen ak jàmm seen émission le rendez-vous de Sénégal 7 le rendez-vous de Sénégal 7 di émission bu leen accompagner seen biir site préféré di Sénégal 7 di traité bépp thème d'actualité boo xam ne rek euh, ñeel na wàllum culture environnement politique ak euh, sociologie à chaque fois rek bu ñu fi naree waxtaanee ay thème dañ fiy dalal koo xam ne rek xam-xamam màcc na ci mu indi ay éclairage yu am solo par rapport ak tolluwaayu réew bi loolu moo tax aujourd'hui j'ai le plaisir euh, de recevoir sur ce plateau monsieur Pa Assane Seck journaliste agent conseil salaamaaleykum Pa Assane bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum warahmatullah taala wa barakatuhu yaa Seyda hmm. maa ngi laa nuyu ba baax <laughs> maa ngi laa fay baax a baax a baax <laughs> maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy xool ñépp di ñu setaan mhm. euh, di ñu déglu di wax euh, yàlla na yàlla saxal jàmm Sénégal. allahumma amiin Passane ñu dugg suñu vif du sujet yow miin nga émission bi question réponse lay doon entre euh, man ak sama invité ñu dugg rek euh, par rapport ak actualité actualité bi nag phare mun nañu wax moo nekk allocution bi nga xam ne le président de la république defoon na ko ce 3 avril mu nekk rek date boo xam ne rek mun nañu wax ne dafay rek annoncer li nga xam ne mooy 4 avril mu nekk discours boo xam ne bépp la république avant ñuy rek dem ci 4 avril le président de la république Macky Sall ci discours bi mu indi ay euh, promesse ay changement de paradigme yu am solo par rapport ak tolluwaay réew mi rawatina la euh, jeunesse bi yow ban lecture ngay def euh, ci discours bi nga xam ne président de la république servir na ko keroog à la population sénégalaise. waaw gis naa kilifa bu bu am intention. Mhm. bu doon wax seetaan naa ko ak. vraiment j'ai mhm. ma gis kilifa bu bu bëgg def dara. Mhm. parce que il s'est passé tellement de choses que il peut pas être indifférent. Mhm. le président Macky Sall mënul ñàkk am na benn jamono. bu ñu doon wax ne faalewuñu yëguñu bon he doesn't care moom xam nga il y va à rythme et mais la dernière fois on a vu depuis les petites histoires yi fi am. Mm-hmm. on a vu benn benn déclic benn réaction mm-hmm. j'ai compris c'est ce qu'il disait après son second discours ma gis ne intention ngi ci mais qui tend trop wala vraiment sur les jeunes la jeunesse que dinaa leen jàppale dinaa leen taxaw je vais ñu sentir quelqu'un qui veut être décisif mm-hmm. mais sauf que moi moi j'ai vu quelqu'un de très esselé pourquoi esselé parce que dama ko déglu Euh, vraiment sans prétention ak ma jéem a maanu tuuti. déglu naa ko ak samay limites et tout ma gis ne kii di wax ni dafa soxla ndimbal. Mm. c'est l'impression que j'ai eu ah mën naa juum nag ma am cette impression que président bi dafa toll foo xam ni c'est comme s'il était entre le marteau et l'enclume comme quelqu'un qui se cherche qui qui se dit ok je fonce sur ça mais qui en fait semble se perdre et revient pour dire je foncer sur ça. Combien d'agences y a, euh, a-t-on mis en place ANPEJ, DER, c'est-à-dire toutes ces structures soi-disant pour financer les jeunes. Mhm. par-ci par-là. Mhm. parce que faut que ñu am liggéey il faut que ñu former leen et cetera et cetera une pléthore d'agences yoo xam ni dañoo nekkoon des directions ci ay département ministériels. Mhm. loolu nag c'est depuis l'arrivée des libéraux. au temps de Wade Wade a pensé que qu'il fallait xam nga euh, éclater les choses pour mën a gën a mën am plus de résultats beaucoup plus efficients mais après ça a produit le contraire moy on a une pléthore d'agences avec des budgets à n'en finir assez budgétivores ces agences-là après on se retrouve à devoir ministère bi di def benn liggéey boo xam ne day télescoper ak agence c'est-à-dire tey jii nii je donne un exemple basique euh... case des tout petits Abdoulaye Wade da ko defoon pour lu baax intention bu louable mais case des tout petits c'est quoi c'est presque préscolaire mooy mooy mooy. jardin d'enfants. jardin on va dire euh, crèche on va dire. Mm-hmm. mooy mooy partie bi nga xam ni peut-être ci lañuy ñuy sampee xale bi. Mm-hmm. sunu maam yi daan ko def. Mm-hmm. mais jàpp naa ne intention bi mu ci amoon après dafa mel lu ñu dévoyé alors que c'est un département. du moins c'est un compartiment du ministère de l'éducation nationale donc loolu moo dal suñu département ministériel yu bëri yoo xam dañ leen éclaté ñu am des agences parallèles yoo xam ni daanaka dañuy télescopé wu ils mhm. font la même chose mhm. et on se retrouve à presque benn cacophonie boo xam ni résultat bi mooy lii mooy ñëw nañu ba benn jamono boo xam ni on se perd et on doit on doit reprendre encore repartir à zéro ci li ma déglu man ci li président bi wax keroog mooy c'est comme si on a on va redémarrer alors que le réel problème du question jël xaalis presque quatre cent cinquante milliards tuur ko nii. trois cent cinquante milliards cent cinquante milliards quatre vingt milliards c'est-à-dire teg ko nii ne xale yi àcc leen suñu gis-gis bu gàtt du loolu le problème du Sénégal c'est pas un problème d'emploi le Sénégal a un problème d'environnement socio-économique. mooy que tey su fekkee ni que léegi bu ñu créer emploi yi yëpp supposons. Mhm. ñu ne ok on va créer des emplois on va faire des formations xale yi et mais boo la defalee formation ba pare après formation bi qu'est-ce qui suit qu'est-ce qui doit suivre liggéey mais lan la ñuy liggéey ci ban environnement lañ koy liggéey environnement boo xam ni tout est éclaboussé environnement boo xam ni sa TVA mu ngi ci 18 pour cent alors que pour cent la war a nekk wala 10 pour cent war nekk. Mhm. mënuloo. décisif ci biir UEMOA pour ngeen waxtaan vous les pays de l'union ouest monétaire ouest ouest africaine ngeen d'accord ci benn affaire mënu leen ko après vous vous n'êtes pas décisif vous ne décidez pas sur votre monnaie sa xaalis si sa banque centrale bi lay ki ko garantir moom mu ngi gagner cinq cent milliards d'euros ci sa xaalis yow par an yéen les quatorze pays francophones moom mu ko ciy lekk. Mhm. ba ñëwaat di leen jox cent milliards de dette de fonds dette ne dama lay jàppale alliance française de yu ni mel et cetera et cetera donc ci environnement boobu mënoo ci créer emploi. si est mhm. pas possible c' est à di nga dem mais da ngay delluwaat alors que aujourd'hui il faut faire la grande bataille c' est comment faire pour asseoir une économie nationale crédible économie boo xam ne yow moomoo sa téléphone moomoo sa courant moomoo sa ndox. say suuf yaa ngi koy joxe ak gauche et à droite ce grave le foncier sénégalais ñu ngi koy dispatcher après on nous dira non c'est des investisseurs qui viennent mais attends alors que tey suuf boobu ngay jox investisseur bi non investisseur dafa war a ñëw nga ne ko suuf bi soixante quinze pour cent yi sénégalais ko moom. Mm-hmm. yow vingt cinq nga ci am. nguur day am dayo mais nguur bi day ñëw jël jox leen xool leen indien yi di bay pomme de terre chez nous <laughs> di bay de terre chez di ko jëlaat di yóbbu. di jaay te ñoom du ñu employé presque sax sénégalais yi dañ leen di use mais li ci ëpp il faut venir seeni population yu ñëw jël yóbbu mais c'est inadmissible donc ci environnement boobu mhm. soo ne da ngay créer emploi saway man dama ci douter fort bu bu mais dama ci am doute bu fort c'est-à-dire que j'ai écouté le président j'ai quelqu'un qui a l'intention de faire mais j'ai senti quelqu'un boo xam ni amul ñu ko war ñu ko jàppale comme il faut te ñu ko war ñu ko jàppale pourtant ay boroomi xam-xam rekk ko wër mais est-ce que leurs objectifs ak l'objectif wala les objectifs du président ak l'objectif ou les objectifs des populations sénégalaises benn la. <laughs> mais mais mais personne sur ce cas de figure est-ce que mënuñoo euh, wax rek mieux vaut tard que jamais parce que bu ñu déggee le président de la république euh, si ay yenn euh, mu ngi xam le ne fu mu toll nii la lutte contre le chômage des jeunes nécessite aujourd'hui un nou élan en raison de la crise économique qui attaque tous les pays du monde mm. léegi après muy waxaat par rapport ak réunion bi nga xam ne sur le conseil présidentiel bu ma organisé le 22 avril. Mmh. priorité bi moo moo pour ñu financer le programme d'urgence à l'insertion socio-économique moo nekk priorité xool terroir bu nekk ak nu muy doxee. comme ñoom erreur yu loon def rek jàpp jeunesse sénégalais yépp boole leen ci benn sac euh, est-ce que le président n'est pas en train de se rectifier sur le coup. Mmh, rectifier sur le coup man man déggoo la mhm. gis naa ne am na. on sent quelqu'un qui veut faire. mais yow euh, approche méthodologique bi moo la posé problème. mooy sama problème. voilà cest à fañ ko nar a jaaree. dafa mel ni nga bëgg a dem Thiès bon ne xaaral ma wàcc yoonu mbuur bi après wiiri quoi dugg dafa compliqué. Mhm. aujourd'hui tant que nos états comprendre duñu que nous avons des terres arables. Mhm. Maroc amu ko Israël amu ko ces pays du nord la amuñu ko ñun xeer la ñuy am. ñun nous avons des terres yoo xam ne da ngay jëmbat léegi mu sax léegi mais on parvient pas loolu lu ñu mat a xool la. dañu wut liggéey dañu soxla liggéey. mais qu'on mette les pour que nit ñi dem bay mais ci ban anam ci ban fànn kan mooy dem bay si aujourd'hui moi je suis spécialiste des plantes ma jaar faculté des sciences ñu am lu ma ci wan mais na ma état bi financé ne ma il faut aller vers le nord. pouvez faire quelque chose là-bas ma xalaat Richard Toll Rosso et cetera mais tout ces zone la zone yooyu yëpp zone bu ci nekk am na richesse boo xam ni yàlla rek xam mu toll si vous prenez la vallée du fleuve vous prenez la Casamance vous prenez le centre du pays le Ferlo c'est extraordinaire lu Sénégal am mais lan mooy empêcher sunu nguur yi ñu liggéey ci fànn woowu parce que dafa ku leen tënk wala lu leen tënk. est-ce que nos jeunes aussi sont formés à ça aussi. mais bala ngay former say jeunes ci loolu day fekk ki leen war a former prêt pour loolu. Mm-hmm. aujourd'hui nos autorités ñoom ñooy teg les conditions pour que cette formation la mën a am mu avenue mais bu fekkee ne ñoom teguñu ko mais li leen koy teree teg looloo mat a lijjanti lan moo tax ñun li ñuy toog nii di wax nii ñu mel ni ñu am xam-xam te xamuñu dara. mais li ñuy wax nekk logique boo xam ne kilifa yi ñooñu ko gën a xam léegi les sénégalais nous devons nous poser la question pourquoi li Atepa di laaj quand il parle de la route de l'aluminium pourquoi on ne peut pas ñun au Sénégal en Afrique tegu ci rampe de développement mais est-ce que aussi au-delà de du président Macky Sall Pa Assane du problème euh, de tous les présidents qui ont même succédé avant le président Macky Sall parce que Abdoulaye Wade malgré effort yi nga xam ne defoon na ko par rapport ak l'emploi de la jeunesse moom tamit dafa defoon benn aveu d'échec Abdou Diouf aussi euh, la même chose donc est-ce que mën nañu wax ne cette république parle jeunesse aussi. la la république peut échouer. Mhm. ou les les chefs d'État qui ont eu à administrer ce mais si on di la vérité crue telle qu'elle est on se rend compte que on nous empêche d'avancer. qui est ce on. il, il n'est pas impersonnel ce on là c'est ki nga xam ni moo am intérêt ci ñun ki nga xam ni moom bu taalee ñetti làmp ñaar li koy alimenté uranium bu Niger la ki nga xam ni bu jëlee internet may ko ay ñoñam ñuy dugg ay métro dugg. TER dugg BRT dugg RER la ñuy dundee ci internet ak yépp yow yàlla leen koy jox. mais pas et cetera et cetera et